saddid lisaani nawir janaani safi amaani wa sid baraai asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi ñoo ngi sant yàlla borom bi tabaraka wa taala moom mi yay te yell ci jëmmam ji ñu sant ko te ni mu yeyee te yellee ko ci jëmmam ji as njaamam lottu ci lool waaye di julli tey sëlmal ci sayidul kawnayni wa toqalayni wal fariqayni min urbin wa min ajami sang bi nga xam ne moom la yàlla dogal mu sàngee diggante ñaari way ndijji bopp yi te mooy nit ak jinne yàlla na yàlla dolli jàmm te dolli xéewal ci moom moom mboolem ay saxaabaam ak ay soxnaam ak mboolem ña ko di yëkkati suñu nuyoo muy nuyoo bi nga xam ne moo gën a sell te gën a riis tey nuyoo bi nga xam ne yàlla moom la ñu boole nuyoo bi nga xam ne waa aljanna moom la ñuy nuyoo nuyoo bi nga xam ne ci jàmm la tàmbali te jeexee ci barke te nuyoo boobu mooy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñoo ngi yeesal suñu pas-pas ak suñu jaayante ci sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul waaye di yëkkati nuyoo boobu di ko jaarale ci borom nga ne li Cheikh Mouhamadul Muntaqa bun Cheikh Mouhamadul Bachir di ko ñaanal yàlla dëgëral ko yàlla dëbb ko kattan yàlla fiq aw fanam ba li mu yéenee liggéeyal yoon wi waaye yéene ko liggéeyal umma islami bi suñu borom kattanal ko ba mu eggale ko moom daal na fi sax di naal di yeggale naa naalaat di yeggalewaat moom daal na sax ci naal ak di sottal ñun ñu koy seere ziyaara boobu ak nuyoo yooyu moom la ñuy yóbbu fatiwaa woon jox ko suñu wëyjur suñu sëriñ ak Seydi Aboubacar Sy Mansour ñaanal ko yàlla yàggal ko yàlla wéral ko ba mu mottali yéene bi nga xam ne moom la yéene àggale ci biir xadara maliki yi nuyoo boobu ak ziyaara boobu it moom la ñuy jox suñu wëyjur suñu Cerno Basir Taal mi nga xam ne moo amee jataayu maam Cheikh Omar waaye nuyoo boobu ak ziyaara boobu moom la ñuy yóbbu Medina Baye waaye moom la ñuy yóbbu Léona Niassène waaye nuyoo boobu ak ziyaara yooyu moom la ñuy wëree mbooleem kër yi diine yëpp Canaba ak fépp rek foofa lañ booba lañ fay yóbbu nuyoo boobu ak ziyaara boobu la ñuy jox audit euh, la ñuy jox téléspectateur téléspectatrices yi nga xam ne ñoom ñooy topp wala auditeur wala auditrices yi nga xam ne ñooy topp seen télé réew mi TV rawatina seen émission bi nga xam ne moom la ñuy wax keppaaru mag ñi di amee fii ci Dakar Sodida imaamul alhaji Mouhamed Lamine Baara Mbacke ngeen di ko am dimanche bu jot 22 ba 0 heure baaxoo ci ànd ak seen mbokk sëñ Baara Mbàkke waaye man koo topp it ci 97 point 5 ci euh, rajo bi mbokk yi xam ngeen seen émission keppaaru mag ñi niñ ko baaxoo defee dimanche bu jot ñu fi teewee fàttaliku kan mooy ñen kenn ci suñuy mag mag ñi nga xam ne ñoom ñoo taawul islam bi ba ñun ñu man cee jot ndax wax naa ko waxtu wu ne alayhi salaatu wasalaam la ko yàlla yónni woon mooy lislaam bi mu ko joxee lislaam nag moom ba muy dem lim jottali leen ma li ma yàlla yónni donte benn aaya la donte genn kàddu la wax leen ko ci li ma yàlla yónni loolu la dénkoon saxaaba yi saxaaba yi bay ci seen waar taabia yi bay ci seen waar taabia taabia yi bay ci seen waar waaye nag suñuy mag ñi nga xam ne ñoom ñoom ñoo dëkkee suñu gaal gii ñoom it bay ci waar wu am solo am solo am solo ndax li ëpp ci ñun wala boog liñ gën a xam ñun ñii doon ay jullit ñi ci ëpp dañuy juddu rek doon ay jullit lan moo tax ñu judd doon ay jullit mooy suñuy maam ñoom ñoo jëloon l'islam bi pratiqué ko yar ci suñuy maamaat suñuy maamaat yar ci suñuy baay moo tax ñun ñu juddu fekk tool bi nga xam ne moom la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam jihoon suñuy maam sof ca ñun ñu dikk daal di foofa suñu mag ñooñu it la ñuy fàttaliku ci seen émission bi nga xam ne mooy keppaaru mag ñi dimanche bu jot waaye nag niñ ko baaxoo defee benn ñëw fàttaliku kenn ci mag ñi wala ñu fàttaliku lenn ci njàngale mag ñi comme ci émission yi nga xam ne moom la ñu weesoo tey ci mag ñooñu lañ bëgg a jël kenn it moom it fàttalikuwaat ko kenn ci góor yàlla yi xam naa dama koy siraamtal duma ma gaaw a turam waaye kan laa ci war a àddal boroom xam-xam bu mag Serigne Salih sekk moom it di boroom xam-xam bu mag boo xam ne bu ñu waxee parcours am rek danañ xam ne boroom xam-xam la ndax daara ji gën a rëy ci tuubaa ñuy daa muy daara Serigne Abibu wala boog bokk na ci daara yi fa gën a rëy foofa la jàngee alquran waaye daara ji nga xam ne fu ñu tuddee daara ci tudd ko muy kokki it jàngee na fa alquran waaye Kaolack muy bërëb bërëb xam-xam boo xamante ni bari na ci boroomi xam-xam yoo xam ne fa lañ naanee ci naanuwaay yooyu moom i jaar na foofu jàngee na fa xam-xam ba li fa la amee li ñuy wax baccalauréat bu luga arabiya wala arabiya wa faransiya kon buñ ne boroom xam-xam la dañ naan ñu ko jàngal waaye mboolem ñi nga xam ne moom lañ barab yi ñu tudd ne fa la fa la jàngee danañ xam ne kon Serigne Saliou lam fa tey bu ko euh, bu ko séddoo ak ñun. xam-xam dana feeñ incha allahu taala Serigne Saliou sekk moomu mooy ki nga xam ne it bokk na ci ñi nga xam ne ñooy yor bayaanu pour jumaay Serigne Cheikh moom Serigne Saliou ji nga xam ne moo nekk fii ci parcelle unité 12. Serigne Saliou sekk moomu moom lañ dalal tey moom lañ fas yéene ànd ak moom jataay bi xam naa dama koy jox mu nuyoo rek. incha allahu taala ma dikk ci li may siramtal nag mooy kilifa gu mag góor yàlla googu nga xam ne tey moom lañ jukki bëgg a jàng mooy kan ak ay jaar-jaaram sëriñ Saalih fal tatafaddal mashkura bismillah wa alayna wa alaykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu amma baad ixwatul kiram nahnu nuxayikum bi taxiyati l islaamiya alaa wa hiya assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. waaleykum salaam wa rahmatullah. allah gi sëñ Baara Mbàkke. ñoo ngi lay delloo nuyoo. ci anam gu gën a rafete yow ñi nga xam ni yéen a bokk liggéey bi ci palaatu bii nga xam ni euh, da nga fi ñëw waxtu wu nekk. di fi liggéey liggéey bu rafet. di fi liggéey lislaam di fi liggéey diine. di fi liggéeyal Seydina Muhammad alayhi salaatu di fi liggéeyal yàlla waaye di fi liggéey nit yàlla yi nga xam ni mhm. ñoo donn mission Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam euh, loolu nag euh, ñoo ngi ciy profité di nuyu waa Sénégal gépp mhm, mhm. ak àdduna bépp ak mboolem fu téléspectateur nekk rek di ñu taabaan ci émission bi ñoo ngi la ci nuyuwaale di ñaan yàlla def nañu jàmm ak xéewal ak ndam ñu dugg ci jàmm génn ci jàmm ah, ah. incha allah waaleykum salaam wa rahmatullah waa kay Serigne Saalix jërëjëf yal na yàlla fay la yow it wax dëgg yàlla macha allah ñoo ngi lay ndokkeel bu baax a baax di la sant it ci jàppandal gi ñu jàppandal alhamdulilah ndax wax dëgg yàlla yitt yi bari na te Touba nga jógee <laughs> wax dëgg yàlla Touba ci ay kilomètres yu bari bari bari bari la waaye aajo ji nga am ci mm. liggéey bi ñu la woo muy liggéey bi lislaam bi mm. yëg nañ ko bu baax a baax a baax ñu ngi ñaan yàlla sàmm la te uh, may la ndam ci li ñu naal insha allah taala Serigne Saalix góor yàlla gi ñu bëgg a waxtaanee mm-hmm. góor yàlla goo xam ne. Mhm. ñu baree baree baree baree jamonoonte nañ ak moom. waaye xamuñu ko. déedéet ndax bi mu fi jógee yàggut. ay at yu néew. yàggut ak léegi. waaye mhm. xëy na umpale gi ñu ko umpale. Mhm. mbirum suñu borom la. dëgg la benn ñenn ñi ñoo ko xam jariñu ci moom waaye ñëpp ci nit ñi mhm. mën naa ni aw turam lañ xam ginnaaw bi mu fi jógee ñuy nettali ay waxtaanam wala boog ñuy gis ay photoom ci la mhm. ñuy door a xam moom mooy kan allah akbar góor yàlla googu mooy kan Seydina Al Hasan allah akbar salaam mi dëkkoon jaarim mooy Seydina Al Hasan salaam mi ah, dëkkoon jaarim góor yàlla gu mag googu nga xam ni cër bi ko yàlla jox mhm. teewul yàlla sëñ Tuubaa la ko cërelee dëgg la loolu xam naa bëgg naa ñu dikk ci nu mu gën a yaatoo waaye góor yàlla googu daal Seydina mhm. Xasan Salaam moom laa bëggoon ñu xam moom mooy kan ci ay way jur mhm. ak ci wàllum njàng ak yu demee noonu ñu tàmbalee foofu insha allah awalan waa da ngaa tudd nit yàlla gu màgg nit yàlla gu tedd da ngaa wax sa biir wax ñi ëpp ci réew mi fekkante nañu moom jamono waaye malheureusement xamuñu ko. malheureusement. <laughs> waaw xamuñu ko. loolu nag nit yàlla. mu mhm. baaxoo noonu. moo baaxoo loolu ndeysaan. Mhm. Euh, mën ngaa bokk nit nday ak baay. Mhm. wala ngeen bokk benn famille. mu nekk ak nit yàlla. waaye xeeb gi nga koy xeeb. moo tax doo doo gaaw a jaruñ ci moom. dëgg la. sëñ Assane euh, ñi ko jige woon. yéex na ñoo jariñu ci moom. comme sëñ Touba ni nga xam ne ñi ko jigoon yéex na ñoo jariñ ci moom. sëñ ko dal. waaye yow mii dund nga ak moom. man mii dund naa ak moom. Mm-hmm. te yow mm-hmm. booba xamoo ne suñu asan. Mm-hmm. mi ngi ci kaw suuf. wallaay ndeysaan wallaay. lu wér. ndax bi fi jugee yàggul. ci lu wér kay daan wax naan sëñ Tuubaa moo ni ma woon. da ngay bàyyi ba sa doom sama doom yëpp toog. nga doog fay jugee. te ci xilaaf ak sëñ Sall la fi jugee. wallaay ndeysaan seetal loolu. <laughs> loolu xar baax dëgg la. xam nga xar baax la. dafa loolu xar baax dëgg la. waaw léegi moom nag. xam naa wax ci yomb na. jafe na. waaye dañuy ñaan ci mm-hmm. kàttanug yàlla mm-hmm. lépp luñ ci wax yàlla nekk ak njub amiin amiin incha ci waxee it lu nekkul naka su dul noonu yàlla ñu ko yàlla jéggal amiin incha allah te xam ne doomu aadama day juum dëgg la dëgg la ndax ñun mag ñi dañoo yitteel mm-hmm. lislaam dañoo yitteel gëstu lu baax dañoo yitteel ndeysaan moo tax ñu teew tey ji jotaay bokk ak yow ndeysaan moom nag ci gàttal rek bu fekkee mën nañ ko taarif nga ni moom mi ngi feeñ dëkk bu ñuy wax euh, dëkk bi mi ngi nekk ci ginnaaw xombal waaw xam naa dëkk bi dana ñëwaat sama xel waaye dëkk bu ndaw la ñu ginnaaw xombal village la bu nekk ci ginnaaw village bu ndaw bu nekk ginnaaw xombal léegi bi mu fa feeñee euh, bi ba nga xam ne xaw naa dëgër tuuti euh, bi mu gënee jamono rek bi mu gënee jamono senegal ci dëkk boobu euh, mag ñëpp dañ ni kii doomi jinne la doomi jinne waaw doomi jinne waaw mm-hmm. ah, ndax melokaan bi mu àndaale. ndeysaan mag ñi xamuñu ko. dëgg la. Mm-hmm. ñu yóbbu ko ci ay jaañ. Mm-hmm. daan ko ndëppal si mag ñi yooyu ñuy def. waaw nga xam ni nit bu mosaan a judd am melokaan bu mu mel. buñ ko yóbboo bu buñ ko ndëppalee dañ ko gisaat. dëgg la sëñ Assane def nañ ko ko ba sonn. waaw saa yi ñu ko defee rek buñ dikkee fekkaat. jëf waaye am ku nii kii te ko yóbbu gi sëñ Tuubaa. ndeysaan waaw ndax sëñ Assane fekkat na ak sëñ Tuubaa. fekkante na sëñ bi jamono. waaw ndeysaan fekk na jamono. kon guddoon na fan. gudd na fan. Mhm. Euh, te sax. Euh, mhm. wax na ni daa ñëw wax na ne wax na ni yoon wi la mujjee ñëw. Mhm. moo tax mu amuk njaboot. loolu danañ ci ñëw. waaw. bi ko yóbbu gi sëñ Tuubaa bi ko sëñ Tuubaa xoolee. day leen kii dara jotu ko. yóbbu leen ma ko Cheikh Rafaal. jotal leen ma ko Cheikh Rafaal. waaw ndeysaan. <laughs> waaw ndeysaan. bi mu demee ci maam Cheikh bi ko maam Cheikh xoolee. dafa ree. daal ni ah kii dara jotu ko. lim yanu. moo rëy. moo rëy waaw li mu yanu moo ko ëpp doole. ndeysaan moo tax mu mel nii. ndeysaan waaw. nga xam ne ci noonu nañ ko bàyyee. mu yaroo ci noonu. màggee ci noonu. Eh, bi nga xamee ne dem na ba màgg bokk na ci mag ñi nga xam ne sëñ Tuubaa da leen yoroon. bi nga xam ne dem na ba màgg. ci la tàmbali di wax. ci la tàmbalee di wax. waaw di wax. man sëñ Abibu Kan moo ma nettali. mu sëñ xawsu jëf mhm. doon sama xarit ndeysaan ma daan ko fréquenté mhm. daan jóge Touba su ma ñëwee mu may jox néegu boppam mhm. ma fay fanaan ndeysaan waaw ay doom xam nañu baax a baax a baax waaw suñu ay bukkan moo ni ma suñu asan moo ni ko bi muy xale la gën na sonn bi doon tuut tànk tuut tànk ndax booba malaaka mi da ko daan déene ko sàccal xaalis bi ci poos sañ baara nga saraxel ko waaw soo ko déglu sañ baara dana gàllankoor yàlla mu sëñ baara am wallaay nee na nee na mu tafu sëñ baara jëlal ci poosu diw waaw saraxel ko ko waaw ndax soo ko deful ndax mu jañal ko lor lor wala ndeysaan lor joo xam ne war naa ñëw ci ginnaawam mm-hmm. te sëñ baara yëgu ko ndeysaan te moom sant nañ ko ko te mm-hmm. sëñ koo bañ mm-hmm. ndax su ko bañee rek mbugalum yàlla wàcc ndeysaan ndax mission la yor ndeysaan na mu tafu xaalis ba ci poos ba ñu jàpp ko dóor ko dóor yi métti nee na bi muy gone nii la ko yàlla liggéeyloo laa ilaha illallah laa ilaha illallah allahu akbar allahu akbar waaye bi mu nee ba nekk mag mhm. ci la yàlla changé liggéey bi mhm. Mhm. ñëw na sama xel mi ngi gën a jëm dëkk bu ñuy wax euh, njàkkaan njàkkaan waaw njàkkaan njàkkaan mi ngi ci ginnaaw xombal mi ngi ci ginnaaw kaa xombal waaw ah, ndeysaan nee na baayam daa bokk ci góor yàlla yi nga xam dañ ko na njëkkante ndeysaan nee na waaye juróom wu jigéen moo dem ci ab teen daal di root ca teen ba suñu asan soppiliku walax mhm. yaayam rootaale ko la ilaha mu jël paan ba mhm. daal di ko sotti ca ndaa la mhm. daal di tànq ab pot may waajuru góor suñu asan nee ma daw dugg ca pot ba ndeysaan sama waajuru góor daan may naan ma soppiliku euh, ci la mujj doon euh, euh, leeram leeram ndeysaan nee na ci laa mujj nekk ak wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan eh, ñu laaj ko foo jànge mu ni jànguma fenn. la ilaha illallah kon képp ku ni la. ak mm-hmm. sëriñ ko jàngal da lay nax. te te te moom ummi la ndax moom kay na <laughs> <laughs> <laughs> kay. wax na ko ci mbindam. Mm-hmm. daan wax naan moom daan faral di wax. waaye kenn daaw ko bindal. waaye dégg naa ko ci ay kàddaw muy wax ni. Mm-hmm. fu ngeen mus a gis ku jàngul. ferul baa te raw fóore la ilaha illallah allah mu ne bu ngeen mas fu ngeen mas a dégg waaw ku rafet jàngul baa terewu te raw ay fóore te raw ay daan ni man lii la waaw daan nag du baatin kéemtaan lay wane la ilaha illallah daan ni ab yonante du wàccaat mm-hmm. waaye yàlla moo may yónni waaw ah, ndeysaan ni ma demal nga xettali jaam ñi ndeysaan wallaay ndeysaan daan ni damay ñëw jamono mm-hmm. gis sëñ Touba di xutbu samaan mhm. di borom jamono mhm. ma xam ne ginnaaw sëñ tubaa ku dugg ci ma xam ne ginnaaw sëñ Touba ku woote mhm. woote ba du saf wallaay ndeysaan moo tax ma dugg ci biir kër sëñ Touba mu dugg ci gin biir sëñ Touba tabarkalla tabarkalla tabarkalla tabarkalla allahu akbar xam nga loolu loolu xar baax la xar baax la xar baax la moom euh, moo ban année la gane àdduna takk takk moom nag xam naa bi datti dafa mel ni 1903 ah astaghfirullah 1913. 13 waaw euh, waaw 6 waaw 13 waaw. 1913 waaw xam naa kon téeméeri at la dund daal. waaw ndax daanaka ban année la fi jógee 93. 93 92 93. yaakaar naa la fi jógee waaw waaw <laughs> nii nga xam ne moom nee na. Mhm. xombal la mujjee feeñe. xo xombal la mujjee feeñe jamono. waaw nee na xombal la mujjee feeñe mujjee feeñe jamono. ndeysaan ndeysaan ndeysaan. Euh, ñu ne ko foo njëkk feeñe. Mhm. mu ni nekkan naa ku ni wax ab saxaabi yu. Mhm. bu tudd hmm. Zeyd ibn Xaarisa Zeyd ibn Xaarisa benn mi nga jàng ndeysaan Zeyd ibn Xaarisa dégg naa ko ci bandam oh, na jërëjëf léegi nag Zeyd ibn Xaarisa ndeysaan daa bokk ci saxaaba yi nga xam ni mm-hmm. yonante bi da leen a yabaloon mm-hmm. alayhi ñu dem ci xare bu ñuy wax xaswatu mutata mutata waaw mm-hmm. waaw ñu doon xeex ak euh, roumain yi ci la ko yonante bi yabal alayhi salaatu ak ku ne wax Abdullahi ibnu Rawaxata mm-hmm. ak ku ne wax Jaxfar Tayaar nga xam ni histoire saxal na ni mm-hmm. ñoom ñett yonante bi tàgg na leen mm-hmm. te faatooguñ ndax dañu dara po bi jox naa ko Seyd ibnu Xaarisa Seyd ibnu Xaarisa bu faatoo suñ ko jamee nañ ko jox diw euh, Jaxfar Tayaar waaw Jaxfar Tayaar ñu jox ko ko muy xeex ñu dagg benn loxo bi mu jël drapeau bi téye ko ci loxo càmmoñam. Mm-hmm. ñu dagg loxo càmmoñam mu jël drapeau bi sex ko. Mm-hmm. bañ tàggale bopp ba. ndeysaan yoon tamit est-ce que yàlla monteel na ko ay laafi wurus. ci mm-hmm. asamaan moo tudd ko jaxfar tayaar. tayaara kooku bi mu daanoo ñu jël. toyaara ah, euh, tayaara. <laughs> Ah, toyaara <laughs> <laughs> ndeysaan waaw ah, gi picc. Oh, picc waaw wala avion yu demee noonu. jërëjëf moo tax yonent bi yàlla dafa defal na ko ay laaf. Mm-hmm. laafi wurus. Mm-hmm. muy naaw ci biir aljanna. di fee ka dal. lay ndeysaan ngir njàmbaar gi mu wane ci xas. ndeysaan ndeysaan mm-hmm. bi kooku daa daanoo ñu jox ko Abdoulaye Rawaxata. lay ndeysaan waaw nga xam ñoom ñett ci xare boobee lañ daanoo. ñoom ñett ñëpp ci lañ faa. suñu nii nag kenn ka man la. ndeysaan di yonte ma jëndoon ci alalu boppam daal may goreel wallaay ndeysaan yabal ma ci xasadu mu tatar wallaay ndeysaan waaye loolu mën nga mën nga cee dégg ni mm-hmm. li yàlla wax naa nit yàlla buñ faatoo mm-hmm. faatuwuñu faatuwuñ yàlla da leen yóbbu ca beneen barab mm-hmm. di leen wërsëgal ñuy dund wala tax si beneen lasiina qutilu fi sabilillah amwaata bal ahyaun yurdaquuna mhm. farihina bi ma ataahu allah min fadli jërëjëf lay ndeysaan kon sëñ Assane mën nga ni daa bokk ci fadlu ilaahi lay ndeysaan lay ndeysaan <laughs> seet sëñ <laughs> <laughs> daa tàmbalee neex waaw daa tàmbalee neex te tàmbalee guñ déedéet tàmbalee góor yàlla gi ñuy waxtaanee kon Seydina Al Hasan Salaam naam mi ngi bàyyi mi ngi ganee àdduna ci dëkk bu ñuy wax njaakaan waaw ci village la bu nekk ci wetu xombal ci wetu xombal ci ati ati quatre-vingt-dix quatre-vingt-treize waaw yooyu waa xam naa du ko sori waaw du ko sori alay ndeysaan moom nag bu dee ci wàllum njàngam waaw dañ naan góor yàlla la gu fi yàlla indi woon ngir mu xettali jàng waaye mënuñu koo tuddal fu mu jàngee déedéet loolu ci may yàlla yi la bokk waaw <laughs> ci may yàlla yi la ci may yàlla yi la bokk ci may yàlla yi bokk ndax loolu yàlla may na ko Abdul Aziz Dabaax ak Dabaax yi mi dëkkan Maroc bi dëkkoon Maroc waaw moom mhm. uud la woon daan daan ñaw da daan ñaw ndeysaan waaye musta jàng waaye yàlla da koo defal mu raw fóori yëpp lay ndeysaan waaw maanaam mayu yàlla moo <laughs> demee jërëjëf fadlullahi gi nga wax léegi waaw <laughs> fadlu ilaahi gi nga wax nii waaw mu wàcc ci sëñ Hasan mën na mën na lu raw loolu mën na lu mm-hmm, mm-hmm. ndax yàlla ni mu ko dee defaloon sëñ Asan noon la ko defalee yeneen góor yàlla ndeysaan moo tax sëñ Asan mii mm-hmm. bi mu nekkee xombal ba dëgër euh, dafa màggal si woon benn bis Touba. màggalu Touba. waa xaritu sëñ Baara la woon sëñ Baara dëkk de xaw nañoo niroo yi bi jërëjëf <laughs> xaritam la nag xaw nañoo niroo xaw nañoo niroo ñoo bokk bagage <laughs> su mu saa ne ñëw màggal sëñ Baara lay dal ndeysaan ay gore waaw ba benn bis ko sëñ Fall ne ko sëñ Baara am gan ngoo xam bu ñëwee day wax rek. Mm-hmm. waaw sëñ ko wool. Mm-hmm. la wax sëñ Fall nag. Mm-hmm. ak ko sëñ Fall tontu. wax yi média. ah waaw moom <laughs> waaye nag fii gis nga li yàlla def. yàlla yàlla jox gaa yi yàlla yi. dañ ko war di waxtaanee. benn émission rek maa ngi koy waxtaani maa ngi koy wax fii. ne sëñ Saliou Sow mm, mi ngi doon nettali. suratul Baqara. histoire bi li ko waral. Ah, te loolu lu wér la. boo demee ci tafsir yi da nga ko jékkee fekkee. waaye da doon joxe misaal ci. Mhm. nit yi Moussa yi. Mhm. nag wala yàlla digaloon ñu jënd ko. Ah. pour bëgg a xam kan moo kan moo kan moo def loola. kan moo rey kii léegi yàlla ne leen rey leen nag wi ñu rey nag wi jël yàpp nag wi dóor ko ci bàmmeel bi nit ki jug di wax ak ñoom ndegam yàlla mën a maye loolu te yàlla moom ko waxtaane moom benn imma shakirin wa imma kafura léegi nag sëñ mm-hmm. Fallou mm-hmm. bi mu màggal Tuubaa sëñ Fallou ni ko yow ci man ngay dal mm-hmm. bul dal teg sëñ Baara tey jàpp naa la xarit sëñ Fallou ko jële xombal ni koy waratoo dëkk ci àll bi ndeysaan ñëwal njaareem ci ville bi. Eh, ah sëñ Fallou ko indi jaay sëñ Fallou ko jële xombal waaye moom cosaanam xombal la woon xombal la woon waaye ci Sénégal mhm. xombal la woon mhm. foofu à suivre tuuti ma leeral ndax mhm. nee na ñëw naa juróom-ñaari yoon am ñu ne ñetti yoon waaw waaye na ñëw na nekk Sayd ibn Haarisa bi mu faatoo yàlla taxawil ak ruwaam mu feeñ Égypte nekk fa miis bu jigéen mu jóge Égypte dem France tudd fa Paul. Mm-hmm. di fa dox mission. Mm-hmm. jóge fa ñëw Sénégal Tëngéej feeñ fa tudd fa Baye Bool Baye Baye Baye Këll. Baye Këll waaw. Mm-hmm. waa Tëngéej xam nañ kuy tudd Baye Këll daan daan dëppoo Këll bi suñu Asan nee na moom la woon. ñu ne ko ndax yoon yooyu am nga ci njaboot mu ni aw ma ca njaboot ndax dama doon loo dox mission. sama yoon wi la amul njaboot ndax njaboot day gàllankoor nit. kuy dox ci yàlla. Mm-hmm. te du ma ñëwaat àdduna fii lay tukkee. innama amwaalukum wa awlaadukum fitna. allahu akbar alquran ko wax. moo ko wax daani nag fii la àdduna tukkee. Euh. kuy ñaan bul ci boole fanu gudd. ndax ku sa fan gudd. Mm-hmm. da nga fekk fi àdduna tukkee te kenn du la sang kenn du la jullee kenn du la ñaanal. daani ma ne gedd naa dem naa du ma ñawaat la ilaha loolu bay na xaw xaw seen la woon. Mm-hmm. waaye sëñ Fallou ko jëlee foofu. andi njaareem. ni gouverneur. daggal ko kër woo sëñ Mbay Saar ni ko tabaxal ma appartement sëñ Asan Salaam waaw wallahi nga xam ne bâtiment sëñ Asan Salaam sëñ Falloo ko tabax loo woon sëñ Mbay Saar moo ko tabax sëñ Mbay Saar sëñ Mbay Saar ko ba mu àgg ba tey bâtiment kër la ilaha illallah <laughs> ni ko kenn gënuma sañ hmm. sëñ Falloo ko njëkk yóbbu màkk waaw ndeysaan waaw sëñ màkk benn yoon xam nga sëñ Fallou mbay yàlla gi mu am <laughs> sëñ Fallou waaw mbay mu am comme reconnaître xamal ni nangoo liggéeyal yàlla ci yow rek mi ngoog nii eh, te te asan dama ko dégg ci aw làmmiñ mu ni mm-hmm. sëñ Fallou Mbacke mm-hmm. imaam xobay ni mm-hmm. xare badar laa leen xam ne sëñ bi moom émission moom mbaa ko ah! moo tax moo tax ba ma demee Iran keroog bi ma tax ci néeg bi imaam xobay faatoo sama maram xoñ daa tuuru laa ilaaha illa anta subhaanaka inni kuntu minaz wallahi dem naa dem naa bi bàmmeel bi imam Khomeini faatoo. imam Khomeini imam Khomeini maaruf. mi ngoog moom maaruf. du ñàkk du ñàkk sa beneen bis. Mhm. ñu def ci émission spéciale danañ ci def émission incha allah spéciale waaw ndax ndax lim liggéey ci kaw suuf. ndeysaan ak lim liggéey Sénégal gi Sénégal jot. waaye suñu Assane boo ko wax ci dundam. Mhm. daan ni imam Khomeini bu leen ko jàppee oustaz. Mhm. nitu yàlla la xare badar laa xamante ak moom. sëñ Fallou xare badar laa xamante ak moom. ndeysaan moo eh. sëñ Fallou daanaka wax la ko waxal. daanaka digal muy wax. waaw ni yow yàlla moo la wax loo. Mm-hmm. li ngay gis lu bari gis naa ko waaye man sëñu maa wax. waaye sëñu koo wax. waaw ndeysaan ndax boo dikkee ci ay waxam rek <laughs> <laughs> <laughs> moom eh, sañ sañ wax moom daal mi ngoog. fii ah, ko waaw. bisimilah. nag daa bokk ci awliya kës. ndeysaan maanaam daa bokk ci wàllu yu yàlla. yi yàlla muri lool. yàlla muri loon kii yaay ñuy gis nga xam ne dañuy gis nit rek. allah xam li ne ci moom. allah akbar. Mhm. moo tax sax nee nañu su nee nañu dëgg dëgg buñ koy définir. mooy koo xam ni day dégg loo xam ni. Mhm. nit ñi dañ ko dégg. Mhm. day gis loo xam ni. nit ñi duñ ko gis nit ñi duñ gis. day xam loo xam ni. nit ñi duñ ko xam. dëgg la loolu nag mi ngi ko tëbb ci. Eh, xëy bi at yàlla yi nga xam ni. mooy xool ñi ko soob mu jox leen ko. la ilaha illa anta waaw. waaw góor te yàlla nee na ñaar laa koy jox. Mhm. ki am taqwallah mhm. ak ki ragal yàlla. ndeysaan te suñu asan ñaar yi yëpp dafa dajoon ci moom. allahu akbar ndax kenn daaw ko jox alal. Mhm. te alal ji léwul te waxuloon ni la alal ji léwul. te hmm? bëggul woon daraja. fu ñett a teew mu yeewi ñaar ñi bàyyi kër gi ni ko toogal. la ilaha wax naan jamono ngi ñëw nit ñi eh, nit ñi xamuñu ma de. waaye jamono ngi ñëw ñëpp danañ ma xam. dëgg la daa mel ne dañoo toll ci jamono jooju nag. ci la ñu toll. dañ ko war a xam dañ ko war a xam. ndax man wax dëgg dégg dégg rek laa am ci moom ak diglu ay waxtaanam. allah waaye jaral na ma. taal sama oto dem ba njaarim siyaari. allah allah <laughs> yàlla xam na ko. allah akbar dama koy dégg rek. dégg rek waaye man jaral na ma taal sama oto dem ba njaarim siyaari ji xam. allah akbar waaye wax dëgg yàlla xaw ma kenn ci njaboot xanaa ko ci eh, mel ne docteur Salih Salam. naam Salih Salam te ci laa ko xam. te yéex naa xam ne ci njabootam la yàlla xam waaw moom moom sama wëllër la. borom xam-xam bu baax bu rafet macha allah. yàlla yàlla moom ñoo doon ànd lu bari. yàlla yàlla dolli ko taxaw ku am xam-xam te rafetle ko te sell. ku rafetle xam-xam te te dal te dal dal bëggul daraja. da lay ndeysaan ku oyof waay ji de. oyof tooy. ku oyof macha allah waaye suñu asan. Mhm. Euh, bu ñu la jàngatalee ay mbiram. Mhm. danga nga xam ni yàlla moo nar a dimbali ummatu Muhammad. alayhi salaatu wa mhm. moo tax ñu mel noonu di feeñ ci kaw suuf. ñooñu la ñuy tuddee baqaaya saalihiin. man lay ndeysaan. mooy euh, jeexintal kaw suuf. Mhm. ñi nga xam ne ay jeexintal. des ci gaa yu baax yi baax yi. nga xam ne dañu fay des di xettilee. wallaay ndeysaan tubaarkalla. daan wax naa kilifa yi lu ñu may tëjoo. wallaay ndeysaan. nañ génn. Mhm. mu wax leen seen i bàkkaar. ak seen i ayib ndax man mhm. yàllaa ma yónni. ndeysaan loolu buñ duggee ci karaamaat yi hmm. ndax wali ci laa bëgg a dikk sax ndax moom fi <laughs> daa mel ni li ko nit ñi gën a xamee waaw daa mujjoon daa mel ni xam naa ni ci euh, ay atam hmm. yu mujj hmm. ci ni mu daan def mooy daa mel ne daana tukki waaw maanaam daana dem ci raison yi nit di seeti ay yenn ci bokk yi waaye suñ boroom li mu ko defaloon mooy que ni bëgg a dim xettali jaam ñi tax na képp kum gis lam gis ci yow loolu lay wax dëgg la man bokk na ci li ma gën a neex ci moom. waaw mooy nangul gim nangul gaa yi yàlla yi seen hmm. cër. allah akbar damaa dégg ci benn vidéo génn hmm. góor di nettali. Hmm. góor gi ne. dafa dikk nuyoo ak moom. mu daal ne ko xam nga góor gi alaaji Ibbu Saaxu. góor gi ne ko waaw xam naa ko de jàkk ji may jullee. moo ñuy jiit mooy suñu imaam allah akbar nee na mu ne tekk moom mu yàgg mu ne ko xam nga ko. mu ne ko waaw xam naa ko de. mu ne ko maa ngi gis ab paleem ci àjjana de. allahu akbar. waaw. góor gi ne ko ah mu ne ko waaye nag jël wird mayu ko ko. Mhm. julli yu bari mayu ko ko. waxtaan yi muy waxtaan naan yàlla nee na it mayu ko ko. mu ne ko ah kon si ñaata lu ko may. mu ne ko salaatu tasbiix gi mu woote. waaw jaam ñi di ci jariñu ci la ko yàlla maye pale ci aljanna. allahu akbar. foofu it doguma la ah, foofu laa dikk bëgg nag dëgg la sëñ Saliou yaay dikk allah ci ñu dikk waxtaani góor yàlla googu nangu gën nangulul góor yàlla yi seen ci cër ah. ndax ah. loolu moo waxoon sëñ Fallou it hmm. mbir la mbir la mooy moom sëñ Fallou ak imaamu xumay nii xare mm-hmm. Badar laa xamante woon ak ah, ñoom loolu it moom kalaamul awliyaa yi moom lastu afham naam li anna nii ah. ana ana ah. wa hum man man laa ñoom ñoom lañ noonu la ko sëñ Tuubaa ñoom déggante nañ ñoom noonu la ko sëñ Tuubaa nettalee ci jawaabu Abdul Wadud Abdul Wadud bu masaali bi nekk ci masaalikul jinaan allah akbar waaye góor yàlla yi mm-hmm. liñ mën a xam mm-hmm. te man koo teg bët ci ni mu daan xettalee jaam ñi foofu sax la ñu tàmbalee ci eh, góor yàlla googu tudd alaaj Ibu Saaxo mm-hmm. ndax da def benn conférence mm-hmm. suñu asan nekk ci biir mbooloo ma mm-hmm. alaaj Ibu Saaxo gis suñu asan salaam mu jël micro bi alaaj Ibu mbokk yi nañ sant yàlla na nit ñoo xam ne jataay bu nekk yàlla jéggal waa ku nekk jataay mi ngi ci mbooloo mi te suñu asan bëggoon ku ko feeñal. day la la la. suñu asan yi nañ ma jox micro muy leen mbokk yi ku bëgg a gis nitu aljana guy dox xool. xoolal góor gi yëpp sax <laughs> ay gore waaw ñoom gars yi yàlla yi noonu lañ mel. noonu lañ mel mel ndeysaan waaw ñoom eh. nitu yàlla. Eh. du am kiñaanug biir. dëgg la dëgg la nitu yàlla saa yu amee kiñaanug biir. moos xamal ni waa ju baax la rek. moos waaye du nitu yàlla. walaay ndeysaan moos. Mm-hmm. loolu génne kilifa ma ko ma ko mu ni ma. Mm-hmm. Eh, ba ñuy jaay kiñaan. Mm-hmm. doomi soxnaa ko jënd. waaw dégg naa ko koy wax. waaw kilifa gu mag di sëñ màggat mbay ci kokki. Hmm. ma ne ko ndax la mu ne doomu soxna day gis ci yow gàllankoor bu nekk ci yow. Ah. mu war la koo fanqal. Hmm. lànk bañ la koo fanqal. bàyyi la ba <laughs> daal ci <laughs> ba ba nga <laughs> daanu ci ah, kaw baaxul baaxul waaye suñu asan nag amu woon kiñaan gi moo tax daan wër hmm. di def ay couche yu faat di dem ci dëkk daan wax tam ni may wax loo lii may wax. Mm-hmm. nekkul ne bu set la may dikkal. Mm-hmm. su ma dikkalu du ma mën a wax. du ma wax man lay ndeysaan kon nga man cee dégg ni mission bi yàlla la yoroon. <laughs> te man li li ci gën a am solo mooy que ni. waaw du gis nit rek weer ko ne ko nangam. déedéet. waaye danaan ko nangam ak ci yow waaye boo defee nangam. yàlla jéggal la mi ngoog mu ngi faaw da koy alerte. sama benn xarit euh, Oustaz Abdoulaye Fall. Eh. Euh, mi ngi Kaolack. Mm-hmm. mooy directeur institut Al Azhar bi nekk Passoire. passoire waaw. Mhm. primaire bi. Mhm. mooy directeur bi. Mhm. moo ma nettali ni ma. day sama wëllër lool. lu ci bari sama néeg lay yendu. mun ma benn bis dama ñëw Bambey moom sa Bambey dëkk. benn bi day doxantu ci marché ba. daje fa ak suñu asan salaam. ndeysaan. ci naaju tàng jëm ci digg marché bi. te moom foo laan dem. mu gis benn jigéen. ne ko kaay jigéen gi ñëw mun ko yow def nga bàkkaar boo xam ni. soo ko tuubul. booy faati tàbbi sa waax ndaw ndaw si ni teg ah. ki dee hmm. ko mos ngaa njaalo góor hmm. góor faatu na hmm. yàlla nga ko jëng biir sawara loo ñu ko su borom day xaar nga faatu mu likkale see ñaari jëng ya ndaw si yuuxu yuuxu ba baatam yam jooy ñu ko sëñ bi yàqu naa la ilaha ko yàqoo góore Euh, li ma lay digal boo ko defee yàlla jéggal la bàkkaar bi mënu ko mooy lan mënu ko summi ba set mm-hmm. nga wër marché Bambey bi ndeysaan waaw ci digg bëccëg ñëpp ñu dugg si marché mu ne ko raf leen <laughs> nga wër nga wër waaw daa mel ni am na tailleur bu ko mas a def xaw ma ci ban marché xaw ma waaw maa ngi am ñëw ah. <laughs> bisimilah léegi foofu uh-huh. Oustaz Fall nee na mm-hmm. ndaw gi sanatal summeeku def eh. def àllum neen mm-hmm. xale yëpp topp ko Mm-hmm. nan yaay diw yaay diw mm-hmm. nee na koro bi mu wëree ba àgg rek mm-hmm. benn jigéen ñu mag moo foq mu soro ndaw war du ko bi muy bi muy jeexal wër bi bi muy jeexal wër bi day sax asane ko demal yàlla jéggal na la bàkkaar bi waaye bul ko defaat am na gëneen góor waaw xam nga ah <laughs> xam nga xam nga xam xam nga sëñ Baara. <laughs> xam nga sëñ Baara ku la mën a fegal. Eh, ah? man damaa yéeg fi saa sa bopp. <laughs> di doy yow kay da ngay tiit sax. Ah, da ngay ah, te ni mu ko te ndaw si. la ko waxee kilifa yu mag. ñu bari ñu bari ñu bari. wallaahi kilifa yu mag. moom kay boo gësee si waaram ndeysaan. nii am naa geneen góor goo xam ni. Mm-hmm. mi ngi Kaolack. Mm-hmm. suñ àndoon kawlax moo wax la que moo këram ca Ndorong. Mm-hmm. suñu asan fajar teel la fa ñëw. Mm-hmm. fekk muy ndékk xaw nga mag ñi bu ñu daan ndékki daan toog ak seen njaboot. waaw waaw moo xewoon. waaw moom moo xewoon waaw. ab reerukaay. ak reerukaay ndékkukaay nga xam ne borom kër gi mooy nga waaw ndeysaan waaw ndeysaan. nag. mooy as la. sëñ bi. Mm-hmm. xam naa tur ba ak sant ba. Mm-hmm. waaye day waxi télé. <laughs> dëgg la dëgg la dëgg la dëgg uh-huh. neexee nag moo wax sant ba. déet moom tey nañ def noonu rek nañ suturaal <laughs> waaw moom li sëñ Assane def moo ci ah, ëpp solo. moo ci ëpp solo ci moo waaw mu ne ko sëñ diw. Mhm. mu ne ko naam. Mhm. mu ne ko bàkkaar bi nga def. Mhm. boo ko tuubul boo faatoo sëñ Tuubaa mun laa ram. mu ne ko ah te góor gu murid bu mag la woon Kaolack. waaw ci murid yi mag li bokkoon. ci mag yi murid yi. seetal loolu. góor gu yuuxu. ci kanam fi fi muy ndékkee. te kooku murid la te xamul ne ab jéngam ma nga safara. te saa yi nu waxee mu tudd sëñ Tuubaa. bu ñu wootee daayira mu daw mm-hmm. waaw bokk ci magi murid yi mm-hmm. <laughs> mu ne ko diw mu ne ko mbàkke mu ko bàkkaar bi nga def mm-hmm. boo ko tuub boo faatoo sëñ Tuubaa mun laa ràmm góor gi yuuxu ñu ko ay sëñ bi lu ma def uh-huh. mu ne ko dangaa njaaloog soxna dangaa njaaloog jigéen te fekk nga am ay soxna see soxna am ngi toog <sighs> soxna yëpp tey seen ñëpp moom kay moom man man sax tee naa sama géej. allah <laughs> akbar kii ñëpp a téye seen géej. wa wallaahi. laa ku bari woon alal la kaw la. ci xeetu or laan yëngu. waaw. suñu asan ni ko len daal xam naa ne boo ko defee yàlla jégg la bàkkaar bi. Mm-hmm. mooy da def àllum neen fii ngay summi ko. sa biiri soxna. Mm-hmm. ak sa biiri doom. am nay soxna yu mag am na doom yu mag. waaye xam na ni mbëggalum safara hmm. yëmut ak mbëggalum àddina laa ah, loolu moom benn yoon la <laughs> te gàcce sa digg sa borom moom benn yoon la lay waaye sëñ bi sëñ boobu ci changé la summeeku def àllum neen jóge Ndorong ba kaw ba marché ville ku dëkk kaw la xam na Ndorong ak marché ville ay taxi fay dem fa la jóge dox ndànk suñu asan topp ci ginnaaw la ilaha illallah suñu asan ni ko doxal nga jóge fii sa kër Ndorong ba marché ville ñëpp naan bàyyi diw bàyyi diw bàyyi diw mënu ko nit ñi seddoo bàkkaar bi yow yàlla jéggal yow yàlla jéggal la allah akbar <laughs> nii suñu asan daal yàlla ñu ko yàlla fayal amin amin man dama ne suñu asan yi yeex nañ cee jot jeex nañ cee jot moo waaw daana wax na képp ku ma gisul mm. boo taxawee ci sama bàmmeel mm. ñaan yàlla jéggal la man dem naa ci bàmmeel ala leer bi yàlla nañu yàlla jéggal waaw alhamdulilah ndax yàlla yàlla nañu yàlla boole jéggal alhamdulilah tey daana wax na naan képp koo xam ne mosumaa gis hmm. bu géntee guddi gis ma hmm. yaram araam safara ndeysaan waaw moom daa mel ne am na lu mu waxoon daa mel ne mas naa dégg ñu ne hmm. daf ne woon xaw ma Touba ak njaareem bornoog Touba njaareem la tegu moo tax mu sàkkoon ñu denc ko fa yaakaar waaw boobu bi ñu bëgg neloo daa woo bàyyi ma soxna loo ba mu ñëw bàyyi ma soxna loo. waaw mel na bi nekkoon Jurbel. jërëjëf yal na yàlla hmm. néew mun ko bàyyi soxna loo kaay mu ko jàngal bu ñuy jullee <laughs> <laughs> jàng mu dégg mun ko jërëjëf sëriñ si bari ko. ni ko sëriñ si bari mokk luñ jullee néew. su ma yaa may jullee. bàyyi ma soxna loo. waaw ah, moo moom Baye Sow la bi mu bi mu ne wàccee sa yàggul. yaakaar xam naa xam naa ko daaw jël xaw ma xam naa ko baax. waaw eh, am naa am naa kii ay kii fa demoon defoon fa benn. rab di rew waaye de bi suñu asan làqoo rek. Mm-hmm. ay kilifa yu bari daw ñëw. Mm-hmm. leen déet Baye ma soxna de. nii na si Baye ma soxna na ko na ko jullee. na ko taxaw mm-hmm. moo tax Baye ma soxna ko taxaw. tey sàn. léegi nag ci la waxoon daan ne boo fi jugee. bu ma kenn yóbbu Touba. dégg naa loolu la waxoon. ñu ne ko ndax la mu ni Euh, sëñ Touba. mi mm-hmm. mi ma xam. Mm-hmm. guddi àjjuma gu jot. Mm-hmm. Touba lay déparé. jiite ji euh, njaaram lay déparé. jiite ji Touba julli. Uh-huh. daani Touba képp ku fay julli. ku fay jiite àjjuma. jiite woo sa ci ginnaaw sëñ Touba ngay kàbbar. dégg naa loolu. dégg nga de. de kon nga mën cee dégg ne góor yàlla yi bu ñu faatoo. <laughs> faatuwuñu. ah mm-hmm. kon nga mën a diggat aaya ba mm-hmm. mu ni damaa bëgg na sëñ Tuubaa mm-hmm. buy départ njaarim uh-huh. romb ma fii uh-huh. buy ñëwaat romb ma bu dellu si waat <laughs> <laughs> loolu lii firnde ji ah. sëñ Abdou Khadir daa am ku ko ma sono wax uh-huh. daa am ku ma sa dikk ci sëñ Abdou Khadir ne ko daa koy nuyu daa ne ko damaa jaaroon ci sëñ bu mag bi kat doon ko siyaari sëñ bi ne ko ndax fekk nga ko fa allah <laughs> sëñ bi ne fekk nga ko fa ndax fekk nga ko fa di ndax fekk nga ko fa ndax fekk nga ko fa ah, allah akbar kilifa ah, <laughs> loolu di wax dëgg ah. loolu moo xaa ngeen dimbali <laughs> waaw kon bi mi ngi ko kat waaye kon sëñ bi ne ko diw mu ne ah kay dama laa bëgg a dimbali waaw mu ne ah mu ne ko mhm. sëñ Tuubaa di mhm. mu ne ah mu ne ko alxamis gu jot ci ngoon mhm. maanaam guddi àjjuma lay fanaan si Touba. allahu akbar mi ngoo kon kon suñu Touba ci mission. dégg nga ko waaw ne ko alxamis ju jot. waaw lay ñëw Touba. Uh-huh. alxames gu jot fi lay fanaan. allahu akbar bu jullee doo ko ba àjjuma ji. waaw bu ñu àjjuma ba noppi. nag la loolu mosu ñu asman waxaan na ko nee woon <laughs> nee na guddi nee na bëccëgu màggal gu nekk. Uh-huh. sëñ Touba ci barab bi lay yenn. la ilaha illallah. moo tax sëñ Assane màggal lu mu daan xat xat xat. dana dem ci barab. dana dem ci buntu barab sëñ Touba. ba yor yor gi jeex mu doog génn dem. yow kay da nga maa joxub secret sax boo xam ne loolu. <laughs> waaw loolu moom màggal xat na loolu waaye nag. loolu moom mën naa bàyyi xel. gis nga boo gis gis loolu suñu baaraam. Mhm. bu la neexee nga essayé yoon. Mhm. wallaahi al-asiim yi bu foofu jugee. Mhm. dina am leen loo yëgaat. ci lu wér loolu kay moom mbir la mbir la mën naa bàyyi xel loolu mën naa bàyyi xel yoor yooru màggal gi yoor yooru màggal gi mm, mm, mm. ak guddi gàmm ndax da gis kilifa yu bari bari bari sax li ëpp ci seeni i bernde ak yi ñuy def ci ah, màggal gi ci heure dañuy tàmb ci yoor yoor bi ndax li ko sëñ bi santaane santaane yoor yoor boobu sëñ bi santaane woon te sëñ Tuubaa am na ci ndigal dëgg la ndax ndax mu santaane heure boobu <laughs> waaw daal ni fu waay nekk na ma ko defal dëgg la kon am na ci ndigal am na ci ndigal waaw moo tax suñu asan yi yor yor bu nekk mhm. sëñ Tuubaa lu mu xat xat moom dana dem ci barabu sëñ bi <laughs> fa lay toog ba yoor yor gi jeex day day la nga xam ne màggal daawul fanaan Tuubaa daan ñibbiwaat <laughs> nga xam loolu nga xam ne moom moom màggal gi lu mu xat xat day ñibbiwaat njaarim day ñibbiwaat njaarim sax am na kilifa yoo ko ciy roy gis naa kilifa yu bari bu ñu defee seeni siyaaraat dañuy ñibbi dañuy wàññeekuwaat ci guddi gi ñu mm-hmm. fanaaniwaat njaareem njaareem waaye waaye foofu tuuti rek ci karaamaat yi suñu asan mm-hmm. mm-hmm. ndax bul fàttali ne ab euh, laata nubboo di ko dikkal li muy wax ak li muy def irhaas lañ koy tudde su ko nubboo dikkalee li muy def ñu di ko tuddee moo ji sax waaye wëli yu na karaama lay am wali yu karaama am kon ci karaamat suñu asan Euh, sama benn xarit Matar Diagne. Mm-hmm. lëwal ma Kaolack. Mm-hmm. dafa dégg fiq mm-hmm. ba naan ko Matar Diagne lëwal. lëwal lëwal mooy <laughs> <laughs> ak say xarit. lëwal ak saan yi bi boobu da da koo dégg lool. lëwal ak ba àgg ca. <laughs> ah ndeysaan ko Matar Diagne lëwal. Matar Diagne lëwal. day sama wëllër lool. fa ne boo fa demee tàkkusaan bi lu tolloog téeméer nii danañ ko wër te ñëpp lawal lay njàng si. ndeysaan waaw nga xam ne nga xam ne moom. xaleel sama ami xalil moom. da ko wutal darsun xaas. ndeysaan <laughs> waaw uh-huh. moo ni ma de sama xarit lool moo ni ma. Uh-huh. Euh, sëñ Assane dafa ñëw fii Njaareem. Uh-huh. benn xarit mu ñuy wax mu seet si ko. Euh, bi mu ko seet see. Ibrahima woo. sëñ Matar Diagne ñu ko ñëwoon. sama xarit bi ñëwaat na sëñ Assane Salam. Assane tëdd ci lal bi. Hmm. Eh, Ibrahima ni ko suñu Assane sama sëriñ bi de maa koy ñaanal. Hmm. suñu Assane teg ni ko da baax de. Hmm. waaye sëriñ baa nga sawara. Ah. te sëriñ ba kilifa gu mag la. Ah. bari mbooloo lool. ndeysaan su ma la turam da dagg sa kurus. moom moom kay moom kay moom torkal daal. waaw torkal la waaw <laughs> oh, torkal la. Oh, nag ñu toog ba ci yàgg. Eh, suñu Assane ni ko. Ibrahima sa soxna sii. bu amee gone na ko tuddee ulaymatu ulaymatu waaw mm-hmm. te ibrahima daan def doom ju am mu faatu mm-hmm. mun ko suñu asan xanaa kon jigéen la mm-hmm. suñu asan ne ko déedéet loolu du la ci wax dara ndax yàlla dama ci mosoon a natt kon gis nga ndigal la ndigal la wax li muy wax ni yàlla may wax loo eh, eh, waaw eh, xam nga la muy doon moom yàlla ko xam mi ngoog xale bi judd di jigéen yàlla dogal na kaw la bu ñu àndee moo la kër gi muy sëy ulaymatu la ilaha illallah maanaam kay moom kay doy na waar moom kay doy na waar bii beneen ba it sëñ imaam Diop bu gab moo doon xalifa gab moo ma ko nettali nett ma ñaar xista nee na ma bi man ko ko benn bi mën a sëñ gab waaw sëñ gab Diop bi xam nga ko sëñ gab Diop dégg naa ko waaw moom doon dégg naa ko sëñ imaam dañuy sëñ Assane ren ndax nawet bi dina baax Mm-hmm. nga xam ne bu neer Moussa Diop bu buñ ko laajee rek. Mm-hmm. automatiquement ma leen orienté. da leen di wax ndeysaan. waaw mënu ko ren de nawet bi dañ dina baax waaye ku bay fu am kekke doo am nawet. waaye ku bay fu am kekk. ku bay ci kekk. waaw <laughs> baaxut am de. <laughs> baax dëgg baax ah, <laughs> dëgg. ñaari kekk de moom ñaari. waaw na ma keroog ña bayoon ci kekk. Uh-huh. amuñ dara amuñ dara. man dama damaa bay ci joor gi. dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg. waaw fu kekkee nag moom ñaari. nii. Mm-hmm. te it na ma ni ma. Mm-hmm. Uh, mosuñu toog a sëñ gab. Mm-hmm. am taalibe yëpp sëñ gab bu réer. sëñ Ngab moom amoon na këch moom it. amoon na këch. waaw yàlla may na këch ndax sëñ Ngab yaayam sëñ Tuubaa ko maye. Mm-hmm. waaw yaa yaay suñu basiiru mm-hmm. ñoo bokk benn waajur ndeysaan waaw yaa caani ah ndeysaan yaa caani jur waajuram ak waajuru suñu basiiru waaw ñoo bokk benn waajur mm-hmm. eh, sëñ gab ab taalibeem réer kenn xamul fu mu nekk waaye sëñ gab moo xam na ne faatu na ndeysaan mu laaj ko suñu asan ne ko suñu asan mu ne sama taalibe sàngam dafa réer fan seen yëpp ñoo ngi koy seet suñu asan teg xool ci kaw xool ci suuf ni quoi eh, ki may laaj moo ma gën a xam fi fi taalibe sëñ gab sëñ gab ree. waaw lay góor góor gab ree di waaw sëñ Asan na lee laaj rek. waaw mënu ko nañ ko sàkk sarax. wallay waaw sëñ gab waaw man de noonu laa gise woon. wallay lii moom sëñ imam Diop moo ko nettali. ndeysaan la ilaha illallah. beneen bi sëñ ay bëkkan moo ko nettaliwaat. moo ne ma sëñ Asan bu musaana ñëw suma dëkk bi du wax. su ma ko laajee sa dëkk bi nit ñi dañoo seetlu. ndeysaan daan waaye dëkk bi ma dendel dafay bañ wax turu dëkk ba daa siiw. waaw waaw bàyyi loolu bàyyi loolu waaye dëkk bi ma dendal. <laughs> Uh-huh. Eh, sëñ Assane dafaa ñëw ak yor-yor. toog ci mm. penc ma. Mm-hmm. am génn góor gu jigéen këram. Uh-huh. sëñ Assane da ko cim. yow sa rakk bi nekk Dakar di la mm. yónnee dépasse kër gi nga yë sëgg ci soxnaam. <laughs> allahu akbar. keroog keroog mag ñëpp dañoo téye si gémmiñ la ilaha illa anta te bàyyi diw moom ni ko nit ñi respecté woon la ilaha illa anta si bàyyi diw ñëpp ko respecté woon góor yàlla ñi yàlla waaye da ci teg ne boo defee nangam waaw mu ni ko nag boo defee nangam ak nangam mhm. yàlla jéggal la bakkaar ba la ilaha illa allah danañ ko sax wutal pot di gu ne nga dugg fa dëkk bi mhm. eh, yalwaan soo ko mhm. defee yàlla jéggal la maanaam na na na toroxlu ci kanamu borom bi rek ci kanamu borom bi suñu borom jéggal waaw su ko ko defee rek yàlla jéggal ko sëñ Saliou lu am solo am solo maa ngi fàttali ne yéen a ngi topp seen télé Rewmi TV seen émission keppaaru mag ñi ngeen di ko am dimanche bu jot mhm. baaxoo ci ànd ak seen bokk sëñ Baara Mbàkke tey ñu dalal Serigne Saliou Seck baarakallah <laughs> am na solo lool alhamdulilah maanaam euh, sëñ sëñ Seydina Al Hasan euh, daa mel ni ni ngay waxee mhm. mooy ku yàlla yónni woon mhm. ngir mu xettali jàmm waaye damaa dégg ci sa njëlbeen nga wax nga wax lu am solo mooy daf ne damaa fekk sëñ tubaa woote ba pare. dëgg la ma xam ne ku woote ginnaaw sëñ tubaa sa woote du saf. du saf dara. moo tax ma far dugg ci biir sëñ tubaa nekk sëñ tubaa. baarakallah. loolu day ah. day wax day xikma bu am solo am solo. bu am solo te moom ni mu daan dimbali ab jàmm waaw ni mu daan dimbali ab jaam. Mhm. loolu. Mhm. maanaam sëñ tubaa la yàlla may. waaw waaw waaw <laughs> sëñ tubaa la kenn sëñ tubaa yàlla may. gis am na góor am na góor gu ñuy wax Baye Cheikh Ndaw. waaw turandoo Cheikh Ibrahima. xam nga ko. dama koy dégg loo. Cheikh Ibrahima ko tudd. waaw tudd ko boppam maanaam ah. Kaolack gii bi nga mm-hmm. tuddee Kaolack gii la sama ah, xel dem dafa mas a def lu mel noonu uh-huh. dafa am soxna soo xam ne daf koo romb uh-huh. maanaam mu am fu fu mu laal waaw fu mu teg loxo léegi coow la jub ba mu dem ci commissaire waaw allah akbar waaye gisee bi ñu demee ci commissaire li mu wax commissaire ne ko uh-huh. li tax ma def loolu mooy yàlla daf maa romb yàlla xamal ma ne ma fukki at mi gisee mësta am doom allahu commissaire day mujj jébbalu ci moom. te yàlla nee na ma boo defee nangam. Ah. moom mii dina am doom. allahu akbar allahu akbar kon commissaire day mujj jébbalu. <laughs> daal defee nag <laughs> maanaam moo tax. waaw sëñ Tuubaa. mi la yàlla. la yàlla tàggatal ñu mel noonu. sëñ Tuubaa la yàlla tàggatal. sëñ sa mii nettali nañ ma ne ma am na ko bu dikkoon ku dikkoon ci moom. Mm-hmm. ne ko dama damay def doom ju ma am mu faatu. Mm. daanaka am na lu jege fukki doom yëpp a faatu. allahu akbar. ko. Mhm. bi Sëñ Asan boo demee. Ah. sa soxna bu amaatee doom tuddee ma ko boo ma tuddee dana dund. dëgg la waaw loolu. waa ji soxna si am doom. waaw mu de waxoon na ko waaye comme yónni ci biir ko gën fuuf. waaw xaaral ma tuddee ko. <laughs> xaaral ma tuddee ko yónni ci waaw ni nga tuddee Mouhamed. Mhm. dikk ci Sëñ Asan mhm. indi indi fi xa waaw dafa dikk Sëñ Asan wan indi ko xale bi ne ko ñaanal ko. waaw dafa dikki Sëñ Asan sax ne ko yow laa ko tuddee. Mhm, Sëñ Asan toog ne tekk moom yàgg mu ne ko Muhammad alayhi salaatu wasalaam nga ko tuddee te ba koy tuddee lii nga waxoon. da nga ne yónent bi ma gën. waaye nag baax na demal. mu dem kooka faatuwaat. Eh. waaye bi ma amaatee mu mu dikkaat ci Sëriñ Asan ne ko nag ah. ñaanal ma tey moom yàlla du ma woon mu ne ko boo defaatut na nga defoon it du moo demaat amaat doom tuddee ko Sëriñ mu dund kay moo tax nit yàlla nit yàlla kenn ko nax waaye sëñ sëñ Baara foofu ci ay karaamaan Sëriñ Asan rek uh-huh. daama sama benn xaritu wëlle uh, Baye Cheikh Kan Baye Cheikh Kan waaw di ko baax uh-huh. uh, di di di ku mën yàlla uh-huh. dañu mos waxtaan benn bis mu ma dafa benn xaritam boo xam wëllëreem la saa yoo ko defee riyaada mhm. ay mbiram dox. Mhm. waaye day taxawaat. mu ne ko yow daal say mbir daal jaaxal na ma. Mhm. te ngaa dem seet si asan salaam. wala boo nee bul ko bi mu àggee seet si asan. suñu asan ne ko andi ab ko yow de sa yaay la gërëm loolu sa baay. ndax sa yaay. doon teg ay fitna sa sa sa waajur góor. Mm-hmm. waaw di ko bun xodal di ko teg fitna. Mm-hmm. kon mën ci dégg jigéen ñu bari. ñoo ngi xañ seen doom ñoo ngi ak teraanga. Mm-hmm. ak lu ñu war a am cër bu ñu war am. te ñàkk tarbiyewu seen i waajur góor. mu dana koy waral. moo leen ko teg. ndeysaan. mu ni ko si as ne nag leneen fi mën a nekk. Euh, am na ki loo xam ne soo ko defee. Euh, di nga am dara di nga am wërsëg. wallaay ndeysaan. Mm-hmm. mu ne ko muy lan mu ne ko nga wax sa yaay mm-hmm. mu toroxlu mm-hmm. dem wër sa bàmmeelu baay loolu lay ndeysaan raam wër barab bi su ko wëree nangami yoon su yëlboo sa yaay bu yëlboo yow boo demee nitu yàlla bu la ñaan li say mbir dox waaye ni ko da ngay da ngay sa ngay da ngay sax moo tax yàlla teg la natt bii mu la teg waaw <laughs> ah si yasan di xam naa wax ko yaayam waaw yaayam yaayam yaayam lànk mu dem ci ndijaay ndijaay ndijaay wax ak yaayam wax ak yaayam ba yaayam ni xaar ma dem yaayam dem wër barab bi ab diggante bu gàtt daan a ah, man sax maa def kii dee ba ay yaxam fënax ma nekk fii di naan damay wër barab waa mi ngi dund ba léegi waaye daa mu gisil ma te mënut am dara mun a samp kër mënut a denc dara. mu doon njàngale mu am solo. si mu am solo. mooy que ni woy jur wu jigéen. Uh-huh. war nay sàkkul barke doomam. jëf ndax maanaam boroom këram war naa koo tarbiyewu. Uh-huh. ndax mooy tax day feeñ ci ak njabootam. ak njabootam ëllëg. yaakaar naa sëñ Yaasan mii sax su ma am na uh-huh. ko mas wax. mas naa dégg kuy nettali ne. am na ko masa gis. ne ko diw mu ne ah, mu ne ko sa jéngi sawara yii. war ngaa seet noo tàggalikook moom allahu mu ne ko déedwaay si Asan mu ne ko li la ko teg mm-hmm. mooy mm-hmm. dangaa mës a dugg sa néeg jur wu jigéen waaw fekk muy sol yére te fëggoo oh, <laughs> ke keroog sax xale xale bi daa tiit ba ne ko yaa salaam <laughs> waaw maanaam yooyu fi yi tax li tax ñu mu mat a insister dafa sew mooy dafa dafa laal ak ak wàllu yar bu baax dafa laal ak wàllu yar ah. dugg sa néeg waajur wu oh, jigéen te fëggoo ak noo koy fekkee mu ne ko dangaa dugg sa néeg waajur wu jigéen dafa góo fekk ko muy sol yére allah ko nga gisee awraam moo tax jéng yi la yàlla yàlla jéng sawara waaw allah <laughs> daa yuux ba ne ko yaa salaam laa ilaha illallah nga xam ne suñu asan daan na wax nit mu weddi mm-hmm, mm-hmm. waaye su weddee automatiquement rek day daal di gis da ko wax safaan ba day daal di gis dëkk la waxat na ko waxat na ko waxat na ko mm-hmm. Baye Jili Mbaye Baye Jili Mbaye rahimahullah waaw ni ko man de ni ko man de yàlla ma naa ñëw fi yokk say fan waaye damaa ñëw ñu tëju ma te ku ñuy tëju <laughs> alaaj jili bay waaw munu ko bëgg léegi de <laughs> dafaa ñëw bëgg léegi ni ko jili ne ko ah waay loolu garaaw na de loolu kéemaan si nga xam ne ni mu daan solo daa fekk ndeysaan mu tëj ndeysaan boo gisee da nga yaakaar ne kuy laaj la waaw ndeysaan waaw ndeysaan waaw ndeysaan kuy laaj la léegi loolu it trompé trompé na ñu bari bari bari léegi bari sax am naa sama benn xarit dinaa ci ñëw maam góor suñu asan fanaan na néegam ndeysaan waaw sama xarit la boo xam naa ak waxtu wi rek ndax juróomi minute doo nga ñu dese <laughs> juróomi nga xool lii rek <laughs> eh, eh, eh. waaw damaa bari ay xarit yi xarit yoo xam ni hmm, dañoo jaxasoo ak moom waaw suñu asan looloo tax sax ma taamu jërëjëf am ak yow ab jataay <laughs> ma nekk ma jaxasoo ak ñoom baax a baax maam góor mi hmm. ñoo bokkee fu ñuy duggee xalwa ci gan bi hmm. Mm-hmm. waaw mm-hmm. mag la am na juróom ña juróom ñett fukki at yu manqué mm-hmm. waaw waaye dama ñëw ci ni mu waxan bay jili ni kon ah naa la tegtal la sarax boo xam boo ko defee da nga dundaat waaye du yàgg ceel ne ko jàkk joo gis àggul na nga ko àggale la ilaha illallah say ñi nga xam ne duñ la donn kenn ko na ko tabaxal kër jox ko ci la ba jili may tabaxoon HLM <laughs> yi <laughs> eh. mu ni kii xawuma ko waaye róom nga cee jigéen cee te te gaa yi yàlla yi daal a ngi noonu <laughs> xam naa mag mu ne indi nañ ko fi waaye mii moom indee ko fi <laughs> mag mu ne nag waxtaani nañ ko ci jotaay bi waaye ku mel ni sëñ Asan mii moom sëñ Asan <laughs> euh, yàlla ko tànn dëgg la dëgg la règle boo gis am na exception. maanaam fadlul ilaahi yi nga wax ci njëlbeen gi rek. jërëjëf moom laay confirmer. daa doon sëkk waaw. Mm-hmm. Mm-hmm. moom nga dikk ci maam Góor xam naa ngir. <laughs> waaw waaw ñi kan waxtu <laughs> benn xarit la. Mm-hmm. mag la. suñ maam Góor moom daan commerce ay jamono. waaye ndekete yàlla daa dogal ci moom war a nekkub sëñ daara. Mm-hmm. ndax dafa jàng ba jeexal téere yi. Mm-hmm. jàng alxuraan ba mokkal ko. Mm-hmm. tafsir alxuraan. ndeysaan jàng fiq dégg ko lool. la ilaha illallah moom Matar mi ñoo jàng doon fiq. ndeysaan ko dugg ci oto yi di commerce. ndeysaan di jënd gerte jënd jaay. benn bis moo euh, benn oto ci côté jaaga. a ñëw Kaolack suñu asan ne ko yow du ma fanaan fenn sa kër lay fanaan. <laughs> mënu man ab donga laa de. kër bu daara laa dëkk. te foofa dañuy xale yi dañuy <laughs> yalwaan may lekk. nga xam ne mu daaw mu jàng daal fanaan man looloo ma neex sax ndeysaan doom ma neex ndeysaan nee na suñu asini bi mu ñëwee bi fanaanee sama ah, bëgg fanaan mhm. dafa yendu ba ngoon mun ko ah, daal xam naa bëgg naa fanaan ak yaay doo ko man mhm. waaw mhm. waaw ndax mënu daal na ma fee yàgg am fi ay fan waaye du ko man ndax seen kër gi daa am ami xàmb daa ami xàmb maam góor ne mënu maa xam ne kii daa nga xam. ci yàlla xam ne moom doon sëriñu asraar. léeg-léeg la la waaye doon sëriñ bi. maanaam daawut bind di joxe. déedéet daawut tifli ci ndox. déedéet en fait daa daa tifli. Mhm. ndax loolu loolee dinaa kii di am na sama boo xam ne. hôpital Kaolack loolu liggéeyee. daa demoon seet suñu asan ci njaarim. Mhm. ni ko ñaanal suñu asan ni ko euh, yow di nga nekkub sëriñ. <laughs> mu ne ko sëñ bi jàngu moo de fexe ne ko da ngay fanaan taab <laughs> ko andi bitéelu ndox mi waaw bitéelu ndox mel nii si asat ñaan lu yàgg tifli uh-huh. di ñaan tifli ñaan tifli ni ko naanal daal ñaan ci bopp bi hmm. léegi waa ji bi mag nii waaye maam góor nee na uh-huh. eh, mu ko kër gi denn ak seen kër daa ami daa ami xàmb hmm. te xàmb yooyu dana bokk seen biir kër gi maam góor nee na loolu gaw ma ko ndax moom mosuma xam ki Assane Salam mangu lii la mu wax daa fanaan sama kër rek dañuy waxtaan bii ne ma wax ko mënul lee góor go fanaan sama kër ndeysaan wallaay moo xamu ko wala li nga wax rek ndeysaan ñu bëri xamuñu ko góor go fanaan na sama kër moom moo wax lii laa ilaha illallah nee na euh, magam bi doon nekk Europe ñibbisi bi mu ñibbisee kër gi ñu den dal mhm. di xaaj seen kër gi di ko jaay mhm. magam bi jënd ko nee na mu yuux góor ga waxat na moo ko <laughs> moom suñu asan moom amul kalaamul awliya yi daal las afham dëgg la li annani ana ana hum jërëjëf moom suñu asan euh, dafay nekkoon mission bi yonante bi alayhi salaatu wasalaam ndax moom amul murit mhm. amul tijaan amul xaadir amul laayeen ñëpp laan xett bi waaw daan wax ne yàlla ma yónni mm-hmm. man yërmande jaam ñi laa yërmande jaam ñi laa waaw ab yoonante du wàccaa mm-hmm. waaye damaa bokk awliya këchu yàlla may wax loo ndeysaan waaw loolu yàlla may na ko ñu bari mm-hmm. may na ku ndax Chérif Wouldou Mm-hmm. Mm-hmm. waaw waaw xam nga si alal sax ñëwoon ci ay jamono fanaan gi nan fanaan ci almeer yi waaw xaw <laughs> waaw waaw ndeysaan <laughs> xam naa ci duuf ci nag bi daa xajandoo wut ci cin bi wax nga dëgg <laughs> daa xajandoo dañuy sumb li suur góor yi jërëjëf buñ dellu siwaat ci sumba allah allah ci wax dina wala fa baarakallah baarakallah sëñ Saalix Seck seet teet xam naa daal neex na alhamdulilah Euh, ñuy waxtaani gars yi yàlla yi ndax day tax fi mu ne waaw nit ñi sawar day taxi nit ñi gën a ci jaamu yàlla jaamu yàlla ak moytu te ak àq yu sew yi mi goog ñaari bayit mooy kan day tax sax nag mhm. yonent bi aleyhi salaatu wa salaam doomu aadama jote na ci la ca gannaaw aras allahu akbar ah li mu waxan ci bi mu ci benn dëkk mhm. mu ni ana yaay diw ñu ne ko faatuma mu ni yaay diw jàllagul de ñu ne ko tax mu ni ah yàlla nga koy duma de <laughs> ñëpp teg mu ne dafa bàyyoon aw bëy uh-huh. ci dëkk bi bëy di këpp reeri jaamoor yi <laughs> loolu xool xoolal loolu te ñaata ñor ay bëy deen bàyyi ñu yàq ah la ilaha illallah te xam nga ni béy ku muy téye surtout waaw xam nga béy ku muy téye sàkkaa doomu aadama te àq doomu aadama moo gën a sew moo gën a sew béy <laughs> waaw dëgg la àq doomu aadama mu yéen ana béy ñu ne ko mi ngi fi mu ne jël leen béy bi ngeen rendi ko mm-hmm. ngeen togg ko ndawal mm-hmm. ngeen jël gétt ba xambe ko ko sar sarax bu ni yàlla jégal ko bàkkaar bi la ilaha illallah <laughs> góor yi waaye baarakallaa sëñ Saliou xam naa da koy boole tàggatoo bi alhamdulilah ndax li duuf ci nag bi daa xëj a ndawut ci ci bi mu ni ma ko waxee dañ doon sóor li suur góor yi alhamdulilah léegi après insha allahu taala beneen jotaay danañ ci amaat ndax kat wax dëgg yàlla góor yàlla gu mel ni jar na ñu di ko xamal nit ñi di ko waxtaan ñu ndax day tax it ñu bàyyi xel sëñ Fallou da daan wax ne ah. kuñ ne la diw waaja la nga ne du waaji waaji dana la romb te doo ko yëg allahu akbar allah kuñ ne la diw mooy waaji nga ne ah day wax rek du waaji waaji da lay romb te doo ko yëg kon nag nañ bàyyi xel gaa yi yàlla yi te xam ne la yàlla doon maye yàlla ma ko doon maye uh-huh. ba tey mi ngi fi jugu fi alhamdulilah ay sëñ xasan salaam ñu ngi ci ñi ah, ngi ci dëkk bi ñoo xam ne la yàlla joxe woon ba tey nanguwu ko ba tey ji mi ngi fi waaye nag uh-huh. nañuy ràññee tey bàyyi xel <laughs> maa maa ngi dégg tey rek ah. koo xam ne daf ne xaw ma ah. daa am kum daan may jën ah. maa ngi <laughs> kum daan may ku ko kum daan may jën kooka woo ko hmm. mm, dugal ko ci barab ne xaw ma danañ la dégg ci àdduna xaw ma danga nekk ci ay nit ñu xonq bi mu demee ba jamono dikk loola dikkaat mu dem foofa fekkaatu fa kër gisatu ku mel noonu mooy comme si ñaxsan salaam ni ndax nit yàgg naa dajeeg moom te doo xam ne kii mooy moo tax ko arab wax na koo xam ne dégg naa moom dëgg la waaw bari na ci la dajeeg moom ba tey xamul mooy kan sama xarit bi kay ci oto la oto la dajeeg moom moo tax la waykat ba waxan rek ne noonu laa taqul qad dahabat arbaabuhu ku mm-hmm. man saala ala darbi wasali wallaay ndeysaan ci muxtaaru adab wallaay ndeysaan mm-hmm. bu bul bul bu bul wax ni mm-hmm. la gaa yi amoon wéy na wéy na déedéet kenn mënatu ko am déedéet nee na saa yu jaaree ci yoon wi rek yàlla àgg la ci dëkk ba wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan <laughs> xam naa kaddu tàggoo yi tàggoo yi rek nga ciy soof ah kaddu tàggoo yi mooy incha allah mooy ñu ngi sant yàlla bu baax jërëjëf tey julli gi Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam sang eh, tey ñaanal eh, sunu wasila sunu jëwriñ sunub sëriñ sunub sang Cheikhul Khadim ndeysaan yàlla dolli ay leeram mhm. te taas ñu ci barkeem mhm. yow it yàlla yàlla guddal soo fan jërëjëf ñu ñaanal bu baax kilifa kër gi alhaaji Mbagnick moom it suñu borom sàmm ko amiin ndax liggéey bi kàddu yi ñu mën a yëkkati ba nit ñi mën koo dégg mën koo jëriñoo alhamdulilah moom it wax dëgg yàlla cib liggéeyam la amee yàlla na yàlla sàmm ko it ngeen ñaanal ko bu baax a baax a baax kër gi gën a kawe ba lépp lu ñuy yaakaar Euh, suñu borom def ci lu kaw njort incha allah alhamdulilah yal na lépp mhm. suñu xol na mhm. jërëjëf yàlla taxaw la baarakallah taxaw waa télé beeg ñëpp jërëjëf yàlla barki lépp jërëjëf jërëjëf may ñu wér gi yaram jërëjëf mujj gu rafet amiin amiin may ñu euh, gudd fan allahumma amiin may ñu yàlla nungu suñu liggéey allahumma amiin barki sa bi salaam alayhi salaatu wasalaam jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëriñ Saalix Seck mhm. allah kàddu yi rafet na lool te am na solo lool yàlla sàmm la amiin yàlla gën leeral sa dënn waaye gën a fecc sa lam ba yiw wi nga xam ne ëmbal nga ko jullit ñi alhamdulilah te war leen koo jottali nag ndax am ngeen mission bu rëy rëy rëy rëy ndax balligu anni walaw aaya lii ci jàng ci jottali mission alayhi salaatu wasalaam la bokkoo ndax àq yu sew sewaan yeeg mhm. yu mel noonu léeg-léeg di ci bàyyee xel mhm. ak góor yàlla yi nga xam ne yàlla boole nañu ak ñoom mm, bul def ku la romb rek nga ne du waaja ndax soo ko defee it waaja dana la romb te doo ko yëg mooy góor yàlla gi ñu tànnoon tey ngir waxtaane woon ko mooy Seydina Hasan Salaam mhm. mi nga xam ne suñu borom dogal na mi ngi tëdd foofii fa njaareem te siyaar yi koy di lu am solo am solo am solo yàlla na yàlla tas ci barkeem yàlla nañu yàlla taas ci barke bi ñu ngi lay sant bu baax ci déplacement bi ndax Touba ak fii sori na lool waaye yitte ji nga am ak aajo ji nga am ci tasaare xam-xam uh-huh. moo tax biñ la woowee ci suñu télé bi Rewmi TV uh-huh. xam-xam bu la te doolee ubbi sa dënn te doolee fecc ci saw lan bi TV ngeen man koo am ci canal euh, man koo topp yi ci 97 point ci hmm. rajo bi seen mbokk sëñ Baara Mbàkke ngeen ko àndaloon maa ngi àndoon nag euh, euh, euh, Seydina Malick Imam Malick Guèye ci wàllu jàppandal gi ba ngeen mën a jàkkaarloog suñu jëmm ak moomoo mboolem ñi mu àndal liggéey bi rek ñoo ngi ñaanal ñëpp suñu borom may leen jàmm lii moo doonoon suñu jataayub tey insha allahu taala dañ leen jox digg daje ba ci beneen émission wa aqiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin wa aleykum assalaam wa rahmatullah